sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in laqin lisaani waxlulan minhu al uqad waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 ay bis bi ñu génn muy téereb Munawwirus Sudur wala ñu koy wax Tanwirus Sudur ci bind bi weesu doon nañ xamle téere bi bunt yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi radiyallahu anhu tënke waaye it bunt bu ne lan la ca sëriñ bi radiyallahu di dénkaane loolu ci suñu bind bi ñu weesu ci lañ taxawoon waaye suñu bindu tey nag dañuy tàmbali fi nga xam ne mooy fi yaxub téere bi tàmbalee ngir ànd ko jàngatandoo ko ak yéen waaye nafarandoo ko ak yéen téere bi nag sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko tàmbalee ci bismillahi rrahmani rrahim comme ni mu ko baaxee tàmbalee ci ay mbindam rek noonu la ko tàmbalee mu ne bismillahi maa ngi tudd turu yàlla wala ci turu yàlla lay tàmbalee samay wax ak samay jëf arrahmaani yàlla mi nga xam ne mooy yërëm képp koo xam ne moo ko gëm ak ko gëmut fii ci addunaam ba nga xam ne yërmaaneem ñépp la daj kàpp arrahimi waaye yàlla mi nga xam ne moo yore yërmandeem ëllëg yowmal xiyaam te jagleel ko ñi nga xam ne ñoo gëmoon te topp ko fii ci àdduna di jëf digle yi nga xam ne moom la digle waaye di moytandiku tere yi nga xam ne moom la tere wa sallallahu yal na yàlla dolli tedd nga ak xéewal taala kawe na moom ala sayyidina ci sunu sang wa mawlaana tey suñu kilifa muhammadin moo di sayyidina muhammad wa alihi aki ñoñam waa këram wa sahbihi aki saxaabaam te mooy ñi nga xam ne ñoo jamondoon woon ak moom waaye gëm ko topp ko ci li nga xam ne moom la doon woote wa sallama mu dolli ko wóolu wa baraka te barkel ko salaatan ak dolli wóolu wa tasliman ak dolli wóolu wa barakatan ak barke yajaalu bob dana def biha ca barke boobe haza nazma bii la yax bii la way muqaddamatin mu lu ñu jiital min muqaddamaatil jannati bokk ca njëlbeeni aljana ya allati ya nga xam ne wayda digeef na ko almuttaquuna way ragal yàlla ña amin ya rabbal alamin yàlla na ko suñu borom bi subhanahu nangu kon noonu la sëriñ bi radiyallahu anhu tàmbalee xasida euh, nga xam ne daf cee tudd daf cee tàmbalee ci borom bi subhanahu wa waaye bam ca jugee mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci waa kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam julli ci saxaaba yi waaye julli ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa ñépp te gëm ko ñaan nag way wi mu nekk ci bokk ca way ya nga xam ne bokk na ci way yi jiital ëllëg yawmal xiyaam ga nga xam ne suñu borom subhaanahu wa dig na ko way ragal yàlla ñi mu wax ne xaala wax na li wajhillaahi ngir jëmmi yàlla jëmmi yàlla rek moo ko tax di wax abdullahi jaamub yàlla bi xadimu man liggéeykatub ka nga xam ne aw salahu egge na ko lillahi fa yàlla nee na ki nga xam ne mooy wax de mooy jaamub yàlla bi nga xam ne mooy liggéeykatub rasulillahi sallallahu alayhi wa nee na kooku mooy ki nga xam ne mooy wax kooku mooy ki nga xam ne moo def euh, yàq bi waaye kooku mooy ki nga xam ne moo def bayit yi nga xam ne euh, moom lañ bëgg a ànd ak yéen mu mu ñuy xamal kooku mooy kan mu ne za wa zaaka te kookee day ahmadu moo di ahmadu bamba allazi ma nga xam ne laa ji du yaakaar illa allazi ndare yàlla ma nga jaada tabe na bi fatxil ji ci tëjju lépp loo xam ne moo tëju woon fi kanamam dana kookee di wax de mooy ahmadu bamba di euh, cheikhul xadim radiallahu anhu cheikhul mi nga xam ne amul kenn ku muy joyal yaakaaram di ko jëmee ci moom ku dul yàlla mi nga xam ne lépp lu nit yaakaar ci moom nga koy sàkkoo waaye lépp lu nit am aajo ci moom nga koy sàkkoo nee na moom moomee de ki nga xam ne mooy wax mu ne alhamdu mboolem xeeti cant yi lillahi aji yay la ñeel yàlla allazi ma nga xam ne as jaala def na a sadra dënn ba mat bual aw saali mu di lu ñu toppi ay cër at mat bua aw saalil ibaada muy lu ñu toppi cëri jaam bi fan jaala te mu def ko nee na maa ngi sant suñu borom bi mi nga xam ne moo def Euh, xol bi nga xam ne moo nekk ci dënn bi mooy li nga xam ne moom la cër yëpp di topp lépp loo xam ne moom la bëgg rek ñu ànd ci ak moom te xol suñu borom tàggatal na ma ko ba mu jublu li nga xam ne moo di ak jaamu yàlla kon foofu sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi fi sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo gisee ci ay bindam yu bari nga xam ne euh, lu ci bëree bëri da ci sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax ngir sant ni nga xam ne noonu la ko euh, ab julit war a euh, yittewoo waaye ni ko ab julit war a bàyyee xel bu baax a baax a baax a baax euh, loolu nag doon loo xam ne lu yaatoo yaatu la ci mbindum sëriñ bi ndax boo demee ci mbindum yu bëree bëri dang ko fay fekk mu ci sant suñu borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne moom la ko defal waaye ci lim ko musal ci ay lor lim ko musal ci li nga xam ne mooy saytaane lim ko musal ci ayu jinne lim ko musal ci ayu Euh, mbindeef yi yooyu yëpp sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ci sant suñu borom subhanahu wa soo demee ci euh, mbinda bi nga xam ne am na bayit bu muy wax na xamitu man yaasimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar maa ngi sant euh, ki nga xam ne mooma musal ci wépp lor waaye musal ma ci saytaane musal ma ci jinne ak li nga xam ne mooy mbindeef ñoo ñëpp seenu ay maa ngi sant ki ma ki nga xam ne moom moo ci musal te ma ci musal du kenn ku dul suñu borom subhanahu wa taala muy waxaat ba tey ci feneen ci biir xasida yi ba wax ne yaa rabbi in aatayta fa shukru wa in manata faridan wa sabru yow suñu borom subhanahu wa taala day su ma la ñaanee nga jox ma ma sant la waaye su ma la ñaanee itam la nga la nga xam ne moom laay ñaan gisuma ko la ma cay toftal rek mooy damay gërëm la nga xam ne moom nga def waaye ak muñ ak gërëm rek moom laa cay toftal kon sant moom dafa doon loo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu euh, lu mu bàyyi woon xel la waaye it mën nañoo wax ne roye ko ca liggéey euh, ki nga xam ne moom la doon liggéeyal muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax moom day bi ko soxna Aïsa doon wax naa koon Euh, muy jaamu yàlla di taxaw guddi di sonn ba suñu borom subhanahu wa taala ni ko jéggal nañ la lépp loo xam ne euh, mooy ay njuumte yoo xam ne dam koy def booba yonente bi sallallahu alayhi bi mu continuer di def ay euh, xiyaamul layli ak yi ci yëpp bi ko soxna Aisha radiyallahu anha waxee dane ko ndax duma nekk jaam boo xam ne damay sant sama borom bi subhanahu wa kon nga gis ne sëriñ bi moom lépp loo xam ne moom lay def rek daf koy Euh, roye ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la doon euh, liggéeyal mooy wax ba tey ne subhaanahu tudd naa ak sellam moom sama boroom rabban buur la boo xam ne daa woote na li diini man jëmale ñu ca diine ki nga xam ne lahoo ñeel na ko asiyaadatu sang ga allati sang ga nga xam ne fiiha nekk na ca al amnu kóolite ga ne na maa ngi sant yàlla moom mu nga xam ne day moom moo woo uh, doomu aadama yëpp moo woo mbindeef yépp ngir ñu wuy ji woote bi yonente bi alayhi wa sallam mi nga xam ne moo woote ci diine ji nga xam ne moo fi mujj ca deneen diine dootul ñëw ginnaaw ne na yàlla moomu de maa ngi koy sant bu baax a baax ndax moo ñu tegtal diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu topp diine ji nga xam ne moom la fi andi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy wax ci alquran ne inna diina inda allahi al islaamu wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin kon nee na suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo wax loolu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaye it xam ne diina jooju lu yàlla topp la te lu ñëpp war a bàyyi xel la moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ñëwoon ngir yeesal diina jooju waaye it ngir jàpp diina jooju jàpp ko jàppin woo xam ne yemale ko ak dara batax tax ci wax naa diinun siwa islaamuhu la yuhmadu inda ilahi wa bihi nu jaddidu muy waxaa ne subhaanahu tudd naa ak sellam moom sama borom wa huwa te moom zul arsi mooy borom aras almajidi aras bay aji tedd ah, moom may aji tedd di suñu borom subhanahu wa taala almu i moom ma nga xam ne moo fent mbindee fi fent jamono almuidi moom mi nga xam ne mooy delloowaat ñépp ginnaaw ba mu leen sosee ba pare innahu naka moom suñu borom subhanahu wa taala ah, dana tabe nee na maa ngi tudd sellug sama borom moomu nga xam ne mooy boroom aras waaye mooy borom tedd nga mooy ki nga xam ne moo fent lépp lu am ci àdduna te mooy ki nga xam ne moo sos mbindeef yépp waaye mooy delloowaat ñépp ginnaaw bu euh, euh, li nga xam ne mooy àdduna bi jeexee euh, ba li nga xam ne mooy kaw suuf kenn dootu fi des mooy delloo ñépp ca fa nga xam ne fa la leen jële woon muy bind na leen ci suuf delloo leen ci suuf waaye it foofa la leen di génnewaat mooy lim wax ne ci suuf laa leen bindee ci laa leen di delloo waaye ci laa leen di génne kon sa suñu borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo def loolu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax man mooy suñu borom mi nga xam ne xalaxa bind na al insaana nit wal jinna ak jinne maan boole seen li yaabuduhu ngir ñu jaamu ko rahaban ci ak ragal watamaan aku xemmem kon suñu borom subhanahu wa moom mu nga xam ne moo bind nit ak junne ngir ñu jaamu ko te bind kam leen bind sabab sa du lenn lu dul ñu jaamu ko fii ci kaw suuf waaye jaamu ko ñu boole ko ak ragal ak yaakaar ko moom suñu borom waaye ak xemmem li nga xam ne moom la ñuy def nee na suñu borom subhanahu wa moom moom maa ngi koy sant ndax moo bind nit ak jinne ngir ñu jaamu ko waaye moo bind nit ak jinne ñu war koo sant ci li nga xam ne moom la leen defal ci ay xiiwal te muy wax ci alquran ne wa maa xalaqul jinna wal insa illa li yabuduni binduma nit ak jinne lu dut ñu jaamu ma suñu borom subhanahu wa taala bu bindee nit ak jinne lenn rek moo tax mu bind leen ngir ñu jaamu ko waaye ci naka lañ koy jaamoo mooy ci ak ragal waaye ci ak xemem noonu lañ koy euh, jaamoo ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nag mooy jaamu yàlla googu nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tudd foofu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala li tax mu binduñu looru rek moo tax euh, mu euh, binduñu mu ne suma salaatu topp xewal wasalaamu ak jàmm euh, salaba jot dana ñoddi fi ay njariñ liya ñeel Euh, maa jalat li feeg ñod na liya ñeel ma almuna ay xéewal nee maa ngi euh, sant yàlla euh, maa ngi julli ci yonente bi saa sallam mi nga xam ne maa ngi julli ci yonente bi saa sallam li feeg suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñoddi ay xewal mi ngi xëcc ay xewal di ko jëmale si ci man nena na li feeg looloo ngi am rek maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon li feeg suñu borom mi ngi ñoddi ay xéewal di ko jëme ci man nee na maa ngi julli ci yonente bi waaye maa ngi koy ñaanal euh, li nga xam ne mooy tawfeex ala rasuli euh, tawfeex yooyu ak jàmm jooju ak mucc googu yal na nekk ca ka nga xam ne moom la yónni mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam azahidi may aji dëddu adduna almusafaay may aji ràmm suñu mursidi man aji jubali ka nga xam ne yuhibbuhu dana ko sopp lil anfaay ngir ak jariñu nee na kookee nga xam ne moom laa julli ci moom day tey sëlmal ci moom mooy yonente bi saa sallam ba nga xam ne moom day ku dëddu woon àdduna la daraay àdduna euh, jaralu koon dara waaye mooy ki nga xam ne ëllëg mooy tinu jaam ñi mooy ki nga xam ne mooy gindi mbindeef yi mooy ki nga xam ne mooy teg euh, mbindeef yëpp ci yoonu njub ngir ne diine ji nga xam ne moom la fi andi ak yoon wi nga xam ne moom la fi indi moom la suñu borom tànn gërëm ko Eh, digal ñëpp ñu war caa war koo topp waaye ñu war caa dox jëm ala lazi mu ne salaatu salaam jooju day yal na nekk ci nga xam ne jaa a dikke na bi anna dunya naka adduna day sijnun ab kaso la li muminin ñeel ab jullit bi xayri sunniya ci lu du sette ne na eh, ak salaam jooju yal nekk ci ka xam ne moo wax ne adduna de ab kaso la ñeel ab jullit nga xam ne loolu ab xadis la ñu wax ne ab dunya sijnun li muminin wa jannatul kafiri dañuy wax ne adduna kasola ci ab jullit waaye aljana la ci ab yéefar boo xam ne dafa weddi yàlla euh, li tax wax ne adduna euh, kasolo ci ab jullit dañ koy gam-gamle ak li nga xam ne mooy xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala dik ñi nga xam ne ñoo ko gëm te di ko jaamu te di ko topp xéewal yam leen dencal dig leen ko ëllëg yowmal xiyaam xéewal yooya na nga xam ne na la màggee ak la nga xam ne moom la euh, bari noonu la bare ba nga xam ne euh, nit du bu ko gisee du gis dara lu muur bëtam bari googee nga xam ne moom la xéewal yooya bari moo tax lépp lu ab jullit am ci àdduna day mel ni euh, du doon dara ca kanam xéwal yooyee waaye nag li tax ñu ne ab euh, kaso la ci li nga xam ne moo di ab yéefar mooy yéefar bi euh, lépp loo xam ne moom la moom lay am ci bànneex rek ci àdduna rek la ko mën a amee waaye su ëllëgee bu faatoo ba dem ëllëg yowmal xiyaam mbugal ma nga xam ne moom la fay daje moom la fay dajeel suñu borom subhanahu wa taala di ko teg mbugal mooma day mel ni lépp loo xam ne moom la masa am rek daf koy fàtte ngir mbugal mooma kon adduna gi nga xam ne moom lay bànneexu di euh, am yenn yoo xam ne moom lay am kon la ñuy jàpp ne loola mooy ajjanaam muy kon ajjana wala adduna ajjana la ci ab yéefar waaye euh, ab ab ab kaso la ci ab jullit ab kaso la ngir ne xéewal yi suñ borom dik euh, jullit bi ëllëg yowmal xiyaam Euh, bare gum bari ak xéewale gum xéewale looloo tax lu mu am ci àdduna day mel ni du doon dara waaye mbugal mi ab yéefar wala jàkkaar loolu ëllëg yawmal xiyaam moo tax lu mu am fii ci ay xéewal ak lu mu niiw niiw day mel ni ci aljana la nekk kon loolu lu ama amam solo la mu ne sayidina kookee nag moo di sunub sang muhammadin moo di muhammad salaatu man euh, euh, julli ka nga xam ne wala xéewali ka nga xam ne xat fakka dajji na sijni sama kaso bi safa in ci ak sellal wa aman aku kóolute nee na suñu borom subhanahu wa mi nga xam ne moom moom a génne ci xat-xat yi ma nekkoon yal na dolli xéewal dolli euh, tawfeex ki nga xam ne moo di yonente bi alayhi salaatu wa salaam kon loolu lépp sëriñ bi radiyallahu anhu daf ciy tudd li nga xam ne mooy sellug yonente bi sa sellug sama borom subhanahu wa waaye daf ciy julli ci yonente bi sallallahu di ko ñaanal ci euh, loolu nga xam ne mooy bayit yooyu weesu kon noonu la sëriñ bi radiyallahu anhu euh, tijjee xasida gi nga xam ne euh, daf cee julli ci daf cee tudd suñu borom subhanahu wa ca tàmbali ga tàmbalee ko turu bismillah waaye julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xam ne ñoo di mbooloo mi nga xam ne ñoo ko toppoon di saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy waa këram ak ñaan way mu bokk ci way yi nga xam ne dana bokk ci jiitale àjjana waaye ba mu ca jugee mu xamle boppam daal di toftal ca sant suñu borom subhanahu wa taala ci anam gu mat a mat a mat waaye it leeral li nga xam ne moo fi tax a ñëw jullit ñi wala moo fi tax a ñëw doom aadama yi ak jinne yi lépp te mooy jaamu suñu borom subhanahu wa taala rek daal di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli yoo xam ne yu mat a mat mat la kon euh, ñi ngi tënk foofu kàddu gi di tuub di jéggul bu baax Eh, di wax in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiq illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala sahabati wa sadati kullihim رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم